jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay maa ngi fii nag ak roi des arènes Gambie ñu koy wax xoyantaan euh, di war a daje ki nga xamante ni mooy Baye Mandione ñëw naa mais dama fekk Baye Mandione a ñibbi waaye maa ngi fi ak xoyantaan euh, boom Gambia xoyantaan nuyu naa euh, maa ngi lay fay baax di sant yàlla julli jonantu bi di gërëm suma ñaari waajur di gërëm waa axlu làmb yëpp di la nuyu bu baax di la ziyaara di la ñaanal jàmm waaw heure time time africain la loolu moo tax nga ñëw fekk affaire bi jeex wala nga ñëwoon fekkoo mu commencé nga demaat ñu fekk mu jeex time africain waaw. <laughs> mais naka nga gisee Sénégal. waaw Sénégal nee na ndax ñun dañoo nekk nit koo xam dañoo dund ñaari réew yëpp loolu mooy problème moo tax fuñ ci dem rek dañ fay am jàmm. wax dëgg yàlla làmb ji daal am nañ yaakaar ne euh, dana bokk ci làmb yi gën a neex Sénégal. li ngay wax. loolu maa ko wax fii laa ko waxee sa rajo. lan lan lan. làmb moo tax nga ne dina bokk ci làmb yi gën a. mooy ñëw. kii rëbal moom bu ñëwee rek mu rëb. xuy. waaw day rëbal. mais dañoo gisoon combat bi taxawoon bi Gambie. ñu yéen ñëw def ambiance ba ci ba mu des yéen ñaa kase. dama koy dagg doo ko dagg way bu yàgg boobu noonu moo yàqoon làmb ji damay dagg wee bi doo ko dagg dama koy dagg doo ko dagg ba làmb ji mujjee yàqu yàlla mi da tëwul jam di ko doxaat ba combat bi mujjee taxaw ngeen ñëw woo ko bëree ñaari mbëri kay di ko doxaat ngay wax parce que ñaari mbëri kenn ku ne daa soxla sa morom pour leeral euh, làmb jooju nag li ko yàqoon yàqagul làmb fii Sénégal daggal say we wala fompul Sa Thiès barki démb rek arbitre da ko laal na ko fompul ñu andi morso fomp ko mbër yëpp dañoo dagg seen we daggal say we warul yàq làmb ak fompal say rab da diw wala da ngaa ratax ji li ko yàqoon mooy lu bàyyi ma ñoon bëgg defal boppam rek defal ko boppam xaj na dañ koo déeyoon na ko da ngay daanu xaj na wala ñu déeyoon ko tey du sa làmb mu yàq làmb ji am yaakaar ne bu ñëwee fii dina baax mu jëlaat combat bi loolu rek laa ko natt. mais yow lan moo tax nga ñëw foofu bëriwul nga nangoo ñëw biir Sénégal bëgg a bëreeg moom fii pour leeral loo damaa li ma la wax ko damaa nekk doomu ñaari réew. ama frontière. te bàyyi bi ñoon xam nga muy tuumal ref Gambie ak balaa ngay xam ne ref ak fédération mënuñu dara ci mbër mu pare mooy doo gis kenn ku dugg di jàpp sa tànk. avertissement bu jaarul yoon sax bu la ko joxee sax am nga droit yi làmb ci jeex sax nga bind appel ne lii lañ def ci man jaarul yoon. la am yoon waaye tey doo taxaw rek na ñi ma bëgg def lii ñi ngi a def lii fan ban preuve nga war a am ci ñi ngi ma bëgg a def lii te loolu la làmb ci yàqu askan yëpp nag di ma ci tuumaal xoyantaan lii xoyantaan lu mu def xoyantaan pare na ñëw taxaw ci diggéew bi nekk mbër rek simple pour waa arbitre siffle mu bëre boo gisul koo bëre doo bëre waaye fii nag Sénégal moom dama ne li yàq làmb Gambie yàqu làmb Sénégal nga ñëw bàyyi ma joon wala recevoir bi Sénégal wala boog na laa ko mën a waxee ndax Gambie nga basé ndax yaay roi des zones Gambie mais nga ñëw bàyyi ma ñëw recevoir la ambiance su Sénégal bàyyi ma ñëw wala recevoir loolu naka nga naa dundee. su ma ñëwee ba dugal samay ambiance ba sembereng bi teg cosaan day ñëw xontin day ñëw fii souvent da ngeen fàtte naan yéen da ngeen am euh, spectacle bu ngeen def wala ambiance boo xam ne dina gëneen koyantaan da ngeen fàtte loolu bu soobee yàlla. léegi yow su ma déggee maanaam làmb Gambie da ko naa bëgg andi biir Sénégal. loolu mooy am di làmb ji topp ñëw fii. di nuyu sa euh, président euh, Thiam fédération maa ngi koy nuyu baax di ko ñaanal jàmm di nuyu bépp promoteur association promoteur yi nekk Gambie yëpp ku mos a tëgg Xomba Xoyantaan ak ku ko bëgg a tëgg ak ku ko tëggagul di nuyu amateurs yi Gambie yëpp ku mos a dem làmb ak kuy seetaan ak ñëpp di nuyu mag ndaw Gambie ñëpp président Adama Barrow di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal jàmm pour mu mën a motali mébétam ci Gambia di ñaanal askanu Gambie yëpp jàmm pour ñu mën a préparer combat bi. ñëpp jàpp ci combat ma jàpp Baye Mandione daan ko parce que man amuma amuma bëtu Baye Mandione. mais mais mais gëjoon nga gis Baye Mandione depuis ja bi ko gisaatee tey lan nga gis ci moom. waaw Baye Mandione moom wax dëgg yàlla jàmbaar la li ma gis ci moom jàmbaar la waaye boo xoolee tey man ak Baye Mandione yow war nga mën a def différence na ñii duñu benn. lan moo leen wutee. yow yàlla yow laa wax de man li ñu wutee xam nga ko mooy ndaw ak mag. Baye Mandione fan la nekkee mag. yow xoolee ak. lan xale bi. man Baye Mandione mag la yow may nekk fii di dem ci làmb di seetaan ay mbapat ak yii nii ba may xam bàyyi ma joon booba dama judd booba damaa mën a yéeg seret xam nga seret. waaw boo mën seret. léegi daal da bëgg wax ne làmb ji. grand contre petit la fi mu toll waaw la fay demee sax moo tax petit du xaar dara. mais est-ce que xam nga du yomb bàyyi ma joon ci ci ci dynamique yi mu nekkoon ñoo bëgg a ñu ñoo jox la ko ba pare nga nekk roi de zone Gambie xam nga ne bakkanam bii la ciy teg. gannaaw ma la daal a la jërëjëf maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm dal ñëw de teel a fekkee bàyyi ma ñoon su ma diggante moom buñ la ne yomb am na ci place ku la ko wax da lay nax parce li ci coow li ci am yëpp su waroon yomb sax warul yomb ndax xoyantaan day ñëw pour duma bàyyi ma ñoon leeral affaire bi bàyyi ma ñoon day dem pour dëggal boppam. kon xoyantaan xoyantaan kaay mënu koo dem xoyantaan mënu loolu laay bañ nag loolu laay bañ nag xeex est dina ci am bàyyi ma ñoon ku ko xam ne xam ne day xeex naa taxaw xeex ak bàyyi ma ñoon bàyyi ma ñoon li ma leen waxoon rek léppam erreur la xeex dina am ci làmb ji loolu mu ngi mel ni nga ndax géej gi na ndox ñi ma ngaa taxaw xew ak bàyyi ah, ñi seet rek dañuy jéem rek xam nga ñun ay ndongo lañ mënuñ dara waaye danañ jéem a affronté moom ba xam lu ñu yàlla may lu yàlla may rek ñu gërëm baax na maa ngi lay nuyu ziar bi la ñaan a jàmm jaajëfal naa la bu baax a baax